mbokk yi asalaamaaleykum ak mbégte jàkkaarloo ak yéen ci seen émission seen show tey ñu waxtaanee wàllub politique migratoire waxtaanee également licence de pêche ak itam euh, Macky Sall côté yi nga xamante ne lajj na ci wàllu yooyee dinañ ci waxtaan incha allah ci anam bu yaatu euh, dalal ci pour ça Boubacar Seye di njiitu Horizon Sans Frontières ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau. ñu ngi leen di fay di di nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp. ñu lay fay également bu baax a baax di nuyu ki nekk ci wetam di Malick fal di président bu acteur émergent de pêcheurs du Sénégal ñu ngi leen nuyu également di la dalal. maa ngi leen di fay di leen sant di la ñaanal yàlla ci invitation bi. amiin ñu leen di gërëm ci seen teewaay di nuyu également di met Ndaw ak Fatimata Diop bi ñu dal ci waxtaan bi door incha allah. ñu dooree ko ak situation sénégalais yi nekk en ce moment Chine euh, fii nga xamante ne sax fa la jàngoroy coronavirus bi am njiitu réew bi yëkkati ay kàddu xam leen ni réew pa Sénégal amul dispositif yi nga xam ne moom moo wax ngir indi leen alors réalisme la wala erreur de communication. loolu erreur loolu bu mag la parce que tey euh, le monde entier dañu nekk en alerte ah contre. épidémie bi nga xam ni tey euh, bi mu commencé ba léegi li mu rey ci ay nit wax nañu tey 563 damay wax ni ëpp na ko euh, vu les enjeux géopolitiques bi nga xam ni tey moo am ci attina bi parce que je rappelle que Chine mooy première puissance mondiale li mu am sur l'évolution de son PIB benn pays amu ko kon Chine problème la moo tax certains pays occidentaux alors dañ ci profiter pour déstabiliser la Chine même ci biir Chine sax soo xoolee ñu ñuy gérer virus bi euh, indi na fa ay coow waaw ba nga xam ni tey ñoom jaaxal na leen jaaxal goo xam ni ñu ngi laaj ndimbal kon xam nga comme am na situation euh, d'urgence absolue euh, tey ay doomu sénégalais nekk fa ville bi nga xam ni mooy berceau du virus mooy Wuhan ñu wax ni am na fukki sénégalais ak ñett yi fa nekk depuis boobu di ñaan dimbal pour ñu jëlee leen fa ci ñun la ñu woon la sonnette d'alarme il y a dix ni tey ñooñu nañ leen fa jëlee comme ñoom niñ ko bëggee parce que ñoom ñoo ko sàkku indi leen Sénégal pour boobaa Sénégal dina jël ay matuwaay mais il faut que ñu jëlee leen fa ñu tànqamlu ba bërki démb <coughs> le président de la République daf déclaration ni loolu mënul nekk parce que Sénégal amul la logistique qu'il faut loolu euh, c'est scandaleux euh, damay wax ni mënoon na ñàkk parce que tey xam nga état dafa fort état du sukk ni mënatuma état du abdiquer quelle que soit la situation le rôle d'un état ci circonstance yu demee ni c'est d'assurer ñi nga xam ni ñoo nekk ci tolof tolof bi ak seen famille moo tax dès le début nous avons demandé que mu am une cellule de crise pour topp les familles gis nga démb li am bi ñu defee conférence am na ñu wax ba jooy ñooñu dañu leen war suivre mm-hmm. Mm-hmm. dañu dañu dañu soxla une assistance psychosociologique c'est ma lay nuyu bu baax a baax di nuyu seetaan di nuyu waa plateau bi yëpp alors Boubacar Seye euh, wax nañu ni Chine ci boppam comme ni nga ko expliqué léegi ñoom seen bopp ñu ngi ñaan ndimbal alors ñu dégg autorités yi fan yële passé di wax ni ñoom maîtriser nañ situation bi am na ay dispositifs yu ñu yu ñu jël dispositifs yooyu sax euh, bokkoon na ci yónnee leen xaalis ñoom étudiants yi kenn ku ci nekk alors tey est-ce que disposi euh, dispositifs yooyu ñu wax ñu jël nañ ko est-ce que dal na sa xel xam nga non dara dal sama xel moi je vais être très clair le peuple sénégalais nous regarde xam nga tey euh, dama jàpp ni fii euh, caaxaan bi moo fi war a jeex. Mm. ñu respecter nit ñi respecter au moins ceux qui souffrent parce que tey euh, tout à l'heure daf naa benn débat boo xam ne bi ma ci pare rek j'ai compris que caaxaan daf fi war a jeex. Mm. xam nga li tax ay doomu sénégalais ñoo am problème bi loolu amee dañu bind bataaxal may fàttali ni Chine am na plus de quatre cent mille africain africain tout à fait ñu bind bataaxal yëgal àddina bi yëpp dem leen jëli seeni doom balaa mbir mi jéggi dayoo. parce que suñu demee ba ci kanam s'il y a éclatement du virus la Chine dafay tëj frontière am boo boobaa kenn dootul génnati. kon nañu jëli ñi moo tax tey dama ni dafa jot pour que état du Sénégal jël ses responsabilités face à l'histoire gis nga caaxaan bi moo war a jeex. Euh, lii du politique c'est un fait social. mais ñoom wax nañu ne ñu ngi suivre la situation. suivre ñu dara xamuñu sax chiffres yi c'est pas vrai suivre ñu dara naxaate bi moo fi war a jeex nañu wax nit ñi dëgg gis nga xoolal xoolal xoolal la transparence bi am dans les pays européens. Mhm. dañ ne virus bi dugg na fi jàpp na tel nit def na lii am na keroog sax benn journaliste européen bu naan. crise bii de dafa mel ni y a que l'Afrique qui semble être épargnée loolu tey vu ce mondial de mobilité mhm. bi am tey ci àddina bi